leen ak jàmm live bi comme nañ koy faral di waxee rek du yàgg ndaxte bu ngeen fàttaliku gëj nañ koo def lool sax waaye lépp loo xam ne rek moom lañ fi war a wax du génn ci li nga xam ne moom moo ñu mës a tënk ñun ñëpp ensemble muy le projet bi nga xam ne tey mënees dootuñu ko tuddee le projet PASTEF mais projet wu Sénégal la fa la toll dinañ ñëw ci deux sujets particulièrement voire trois benn bi mooy sur li nga xam ne mooy la reddition des comptes nga xam ne seetlu ngeen ne sax commencé na tàmbali na maanaam suñu alalu réew ñi ko yoroon avant ñun ñoo ñëw naka lañu ko yore te xam ne ñun itam bis dina ñëw cinquante ans après peut-être parce que ñuy continuer moom noonu lay demee dañoo gëm ne projet bii mooy defar réew mi te sénégalais yi adhéré nañ ci dinañ xool ñun liggéey bi nga xam ne moom lañu fi jot a def kon ku ci nekk rek boo ca nekkee am nga mission. boobu booy benn muy reddition des comptes. ñaareel bi parce que ci réduction des comptes ngeen baal ma nous avons des informations importantes à vous donner am nañu information yu am njariñ yoo xam ne bëgg nañ leen koo leeral faram fàccal leen ko ba mu leer nañ ñaareel bi mooy déglu ngeen temps yi coowal lu ñuy tuddee le dossier de l'ASER maanaam ASER agence sénégalaise de l'électrification rurale te Jean Michel seen nekk directeur général bi ngeen gis ay chroniqueur yoo xam ne génn nañu di dal ci kawam di wax ne dossier bi ni mu ko géré baaxul di wax ne dossier bi dafa am préférence étrangère au lieu d'une préférence nationale loolu dinañ ci ñëw et enfin dinañ wax également ci li nga xam ne mooy la communication du gouvernement dinañ ci wax xam naa ne loolu itam beneen mbir la buñ ci eggee dana leer bi ñuy njëkkee mooy li nga xam ne moom mooy reddition des comptes mbokk yi képp kuy sénégalais wala bokk nga mës a jàpp ne soutenir nga projet bi tey nga xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp ko bokk nekkatul mbirum Pastef képp déedéet parce que sénégalais yi ñoo voteel ki nga xam ne moom mooy le président ba Bassirou Diomaye jaxaar fay ak premier ministre Ousmane Sonko ñu nekk fi tey kon day jaar projet bi nga xamante ne moom la ñu ñu yëkkati woon naan projet Pastef tey projet wu Sénégal te moom moo nekk nouveau référentiel bi nga xamante ne moom lañ jàpp ne moo war a defar réew mu fii wër cinquante ans nga xamante ne nag par projet quinquennat lay doon chaque cinq rek ak lañ ca war a def yooy yëpp dina ko leeral waaye mbokk yi ñun ñëpp bi ñu jotee ci li nga xamante ne moom mooy pouvoir bi muy sas parce que man bëgguma wax ne bi ñu jotee ci nguur gi bi ñu jotee ci pouvoir bii sas lañu nekk ci ñun parce que daa am lu ñu fi fekk am lu ñu dégg Sénégalais am fu war a jëm sas boobu bi ci jotee Sénégalais yi. ñu bëri dañoo ne kat affaire bi dafa yéex ci wàllum reddition des comptes maanaam fexe ba alal ji nga xamante ne mooy alalu sénégalais yi ñu wax nit ñi alal jooju fan lañ ko yóbbu ak nu mu demee ñu bëri jàpp ne mbir mi dafa yéex war nañ koo defaraat war nañ koo defaraat war nañ koo defaraat ba mu gaawee gaaween woo xamante ne képp koo xamante ne joxoon nañ la responsabilité alal ja bu leerul war nga ko leeral ci wàllum yoon man mii ak yéen nii bokkoon nañ ci ñuy jàpp ne dafa yéex man wax naa ko kilifa gi muy le le le premier ministre Ousmane Sonko waaye ñoom ñoo approche boo xamante ne man tey laa gën a nangu seen approche mooy dañoo ñëw ne affaire bi du mbirum réglement de compte reddition des comptes la du suñu alal alalu Sénégalais yi la kooy woo naan ko wuyu ci yoon dafa war a fekk nga yor dossier bu beton boo xamante ne leer na la nakat kii alalu askan wi joxoon nañ ko ko jël na marché sàngam dugal na ko fenn fii est-ce que jaar na ci yoon jaarul ci yoon bu amee audit walla rapport boo xamante ne nee na jaarul ci yoon mu soog a wuyu ji yoon ci wàllu woowu mbokk yi ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu fal jël seen temps ngir bañ a tudd kenn ci loo xamante ne kat dañuy yàq sader ci lu dul dëkk ñu jël seen temps def li nga xamante ne moom mooy audit ak ay rapport audit yeeg rapport yooyu nag tey jii nii daanaka pare na moo waral ngeen gis seconde étape bi nga xamante ne moom moo ci war a am muy ñoom ñi nga xam ne audit yooyu yeeg rapport yooyu épinglé na leen ñu dem wuy ji li nga xamante ne moom mooy yoon mbokk yi damay bañ ñu ne affaire bi de compte bu doon règlement de compte bi ñu toogee ci nguur géeg léegi six mois kon réglé nañ ñoom seen problème bu yàgg waaye du réglement de compte ñoom liñ ñu def yëpp teg ñu ko dañ koo jël tegee ne daat ne loolu opposition la woon du woon dëgg waaye yàlla teralee nañu jox ñu sas bu toll ñu war a defar réew mi kon ci defar réew mi lañ toll nag nañ jël suñu temps xool lépp ba mu leer na tegu na ci yoon ñu soog koo jébbal yoon tey reddition des comptes bi tàmbali ngeen dégg ñu ñu commencé woo ku ngeen fi gis mu def conférence de presse naan lu ñu bëgg a dal sama kaw la affaire de règlement de compte la waxul dëkk parce que rapport yépp dina génn d'ailleurs te di ngeen si jot di ko gis bu yàggul dara d'ailleurs ku ci nekk nag am na njombe gu rëy goo def goo xamante ne mën nañ la ne kaay boo demee AIBD di ko fa fekk ASER bii ngeen di dégg dinañ di ko fa fekk boo jógee foofu nga dugg secteur pétrolier di nga ko fa fekk nga dem LONASE di nga ko fa fekk nga dem biir domaine ci wàllum domaine wàllum suuf di nga ko fa fekk muy rapport yu yaatoo yaatoo yaatu yoo xamante ne nga dugg ci wàllum urbanisme bi nga ko fa fekk ku ñu ci woo yàlla xam na ne bu ñu la tegalee dossier bi nga xamante ne moom lañ la toppee yow sa avocat bu dee avocat bu sérieux la boo tiim dossier bi lenn doo nga mën a def mooy génn jéem a alerte opinion bi naan dañ may jaay doole règlement de compte la waaye ci wàllum justice dina ci néew koo xamante ne di nga am argument judiciaire boo xamante ne mën nga ko jàkkaarloo ak ñi nga xam ne tey ñun ñoo leen yóbbu ci yoon muy l'état du Sénégal parce que nag suñu alal mbokk yi la ñu jël dajale ñun ñëpp jox leen depuis plus de douze ans ñu ciy liggéey Mouhamadou Fall wax na dëgg kudd ci la bokk muy alal ju bari joo xamante ne jox nañ leen waaye marché fictif yi surfacturation yi ak def njombe gi ñoom dafa mel ni dañ doon concours ci def njombe surfacturation ak marché fictif concours la woon ci ñoom di enrichir benn façon yin boo xamante ne sax dafa ëpp boo ko dee wax moo tax bu ma déggee tey ñii naan Sénégal ñi set mois yi nga xamante ne wala six mois ñi fi ñuy def gis nañ ne kat FMI nee na baaxul mais lu yàqu ci réew mi ñi ñoo ko yàq mu am nag ñoo xamante ne dañ leen di wax loo di leen jëfloo ñuy génn di wax loo xamante ne xam nañ ñoom ñu koy wax ne du dëgg waaye mbokk yi gis nga li ñu xeex ñun ci réew mii ba nekkat nañ ñu jox pouvoir bi nañ jox sas bi ñu defar réew mi tey la xeex boobu gën a nekk farata am fulla gu mat sëkk ci wàllum communication te dinaa ci ñëwaat ndaxte ñi yàq dañoo yàq jël alal yóbbu ut seeni nit ut seen yenn presse yi ñu bëgg leen a waxal di yàq deru nguur gi nga xamante ne moo fi nekk ba di créer mbir yoo xamante ne amul te ñi nga xam ne te tey jii nii ñi ngi wax lu amul bokk na ci dossier Asia bi te dinaa ci waat bokk na ci Cheikh Yérim Seck ak Badara Badara Gadiaga ak doyen Adama Gaye ñi wax yëpp dara du ci dëkk ay kàcc la te dinaa ko firndeel parce que li may waxee c'est su la base de document te document yooyu bu ñu paree ñëpp dinañ ci jot ba ñu gis ki ñuy défendre ñoom li mu def ci dossier wu boobu parce que réew mi li fi nekk dafa ëpp kon ma ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy reddition des comptes gis nga mbokk yi da ngeen gis ñu bëri dinañ leen duurukat nañ ko woo moom xam na ko donc yooyu yëpp dina ci am ku ñu woo boobu yujee na am ngoruk des ci biir dossier bi c'est-à-dire booy génn di wax ak sénégalais yi duggal ci liñ la toppee ak lan lañu wax ne moom nga def ba dossier bi nga xamante ne ci wàllum reddition des comptes moo tax ñu woolu la nga ne dossier bii kat lii lañ ma fa toppee man lii laa fa def boobaa document yi nga yor nga génnee document yi nga xamante ne état yor na ko mu génnee bu boobaa dina dinañu xam kan mooy kan ak yéen lan ngeen fi def bu fi kenn génn ci ñoom naan non reddition des comptes la naan dañ may jaay doole ñoom gis bu ñu génnee di wax képp kenn ci ñoom bu génnee di wax bis bu ñu la woowee fexeel ba booy wax ñun nañu leen laaj ne leen yow lañ lañ la toppee ak lan lañ wax ne moom nga def ak rapport bi lu ci nekk ñoom ñëpp ku ko ci wax te nga set ci wecc nga dem ñibbi waaye je doute fort ku ñu woo tey jii nii ci woon wàll wii ci rapport ci luñ la toppee nga set ci wecc te ñoom xam nañu ko loolooy li ci yéen en réalité coow li muy bari bari bari ñoom xam nañu li ñu def kon ci mbirum reddition des comptes boobu. falaane woon falaay njëkk a tàmbalee li nga xamante ne moom mooy live bi te dinañ ci ñëwaat dans d'autres émissions dans les télévisions pour leeralaat ko parce que am na lu bëri ñu ci xam bëgguñ dugg ci détails yi pour le moment parce que yàlla secret de l'instruction am na yeneen yoo xamante ne war na ñëw te dañuy bàyyi kilifa yi nga xamante ne ñoom ñooy gérer wàllum communication ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer état bi ak wàllum justice wax waaye man je parle dans le domaine politique et pour surtout pour ak yéen ñi nga xamante ne tey jii nii yéen gëm ne mbir yi yéexoon na et que mi ngi tàmbali mais li taxoon mu yëg ci dëgg ci dëgg la tegu woon teguwul woon ci kat diw def na ma diw tooñ na ma diw jaay na ma doole tey jii jot nañ ci nguur gi xaama fayu teguwul woon ci loolu bu ci tegu woon dans les six premiers mois ñoom ñëpp kon dinañ wuyu ji waaye dafa teg woon rek ci def enquête def des rapports def li nga xamante ne moom mooy des audits ba am des informations fiables loo xamante ne kenn mënu koo naatable ñu jël lépp nag jox ko li ci ñi nga xamante ne ñooy wàllum yoon rawatina parquet financier bi ne leen yéen nag yéen a mission parce que alalu askan wi la nañ xool alal ji bañ leen ko joxee est-ce que def nañ ko nañ ko waroon defee mbokk yi gis nga reddition des comptes bi di tàmbali dina wuuteeg reddition des comptes yañ fi daan wax maanaam alal ji faw ñu càmbar ko xool li fi nekk loolu mooy reddition des comptes ba xam lañ leen joxoon dugal nañ ko fañ ko waroon dugalam déet dina ute ak fi daan am li tax muy ute mooy cette fois ci nekkul rek da ngay jël list juróom juróom vingt cinq personnes bu mujjee cinq wala benn boo xam ne kat da ngay def règlement de compte politique déedéet alal ju ñu leen dénk la ñu dénkoon leen ko ci benn durée joxoon leen xaalis ba ne leen gérer leen alalu sénégalais yi leen des projets ñu jël ko dugal ko fenn est-ce que fa ñu ko dugal baax naam baaxul loolu nag audit ak rapport bu ca génne bi moom amul droit condamné wu bien bañ a condamné da koy jël jébbal ko justice moo war a ñu leen woo ne leen wuy jëleen leen justice ku ci yoon woo te nga set yoon dina la ba waaye ku ci setul dara leer na leen di nga fay xaalis bi parce que ñoom xam nañu te xam nañ li ñu def et ça je le répète encore une fois de plus mooy ci li nga xamante ne mooy wàllum reddition des comptes loolu dafa war a leer nga jug génn ci cas boobu mbokk yi dem ci deuxième cas bi mooy cas bi nga xamante ne moom laa doon wax léegi muy cas agence sénégalaise de l'électrification rurale ngeen dégg ko te mu renégocier contrat bi ba yóbbu nombre de village yi à mille sept cent yu ñu war a électrifier en un moment bi mu koy soog a annoncé les gens avaient applaudi sénégalais yi daan na lii baax na waaye récemment ngeen gis un groupe de personnes boo xamante ne ñu ngi génn naan booy bi kat choisirul préférence nationale ñi naan kat booy bi dafay xeex sénégalais yi da koo jël jox ko tubaab mbokk yi gis ngeen li ma gëm man ci projet bii nga xam ne tey mooy defar réew mi ñi ñuy njëkk a jox résultat xale yi lay doon parce que ils sont décomplexés parce que am nañ tuuti c'est une yu positive c'est-à-dire duñu calculer sax yenn yi nga xamante ne tey jii nii mën na leen a tardeel ngir parce que bu ñu amee dëgg mu leer na leen ne dëgg la ñu am dañuy foncer là-dessus et c'est ce qu'a fait Jean-Michel Sène te dinaa leen wax lu ne ak na mu demee coow lii képp la daa benn société boo xamante ne moom la ñu jox marché te marché bi bañ ko koy jox ñun jotaguñ ci réew mi par entente directe la maanaam gré à gré jaarul fi ñu koy jaarale souvent muy appel à candidature kon gré à gré la par entente directe mooy marché yaama neex comme ni ñu koy waxee mais dañ koy encadrer souvent moom moom la fi fekk waaye bi mu ñëwee gis na entreprise bi nga xamante ne moom moo gagné di AE e bi nga xamante ne moom mooy espagnol bi kooku kat dafa ne dafay résilier contrat am ak ki nga xamante ne moom mooy mandataire di AE Power Sénégal te ka nekk ca booba di Seydou Kane waa xanaa kon Azer moom yoonam nekku ci dafa war a seetaan parce que nee na yéen ñaar la mais dafa am lu ci ne parce que dañoo signé woon loo xam ne dañoo ne liggéey bi kat lépp loo xamante ne moo ci wàllu réalisation yi AE Power Sénégal moo koy def waaye dañoo dem ba ci biir AE bi nga xamante ne moom mooy espagnol bi moom xëy daat ne day résilier contrat am ak sénégalais bi. daal di continuer directement ak ASER léegi lan moo tax APOWER espagnol bi ne day résilier contrat ak sénégalais bi date ne day continuer directement ak ASER mbokk yi lii la te lii ma leen wax document la yu officiel yu nekk yu existé APOWER espagnol bi ki nga xamante ne moom moo ko doon représenté Sénégal di Seydou Kane Seydou kan nag bugguma dugg sax ci wàllum politique waaye pour ngeen tënk wax bi ci lu ngeen dégg ma mook Amadou Ba kiif kiif ñooy ànd suba ak ngoon suba ak ngoon pour que ngeen ngeen dégg Amadou Ba bu bu bu woon Macky Sall tam créé léegi parti am ancien premier ministre boobu bi si njëkk ñaareel bi moom Seydou moomu awapo espagnol bi dafa bind DCMP bind ARCOP bind impôt et domaine bureau bi laaj ko ne ko damaa jot ay facture yoo xam ne AOPAO Sénégal Seydou Kam moom moo ma ko jox ne dama ko war a fay nee na facture benn bii ci yéen la jóge nee na benn bii yow ci DCMP la jóge benn bii yow ci euh, ARCOP la jóge benn bii yow ci impôt et domaine la jóge may laaj ba xam facture yi ce sont des factures yoo xamante ne c'est vrai bu dee dëgg la ma fay ko DCMP bind ko ne ko facture bi jógewul ci man du dëgg réponse bi ñu ngeeg moom demande baa ngeeg moom lépp réponse bi ñu ngeeg moom ne ko facture bi du facture bi du dëgg jógewul ci man donc faux et usage dugg na foofu sur une publique ki nga xam ne moom mooy impôt domaine bind encore ki nga xam ne moom mooy aéroport espagnol bi ne ko facture bi nga may laaj ba xam dëgg am du dëgg du dëgg jógewul ci ñun ñi nga xam ne ñooy impôt parce que numéro bi sax ñun xamuñu ko parce que numéro yi du suivre ñun suñu numéro facture li lii tamit may wax ni mbokk yi réponse la ñoo ngeeg moom a power bi nga xam ne moom mooy espagnol bi daal kii nga xam ne moom mooy représenté Sénégal di sama mandataire di Seydou Kane moom daf may escroquer day créer de fausses factures bëgg ma fay ko xaalis kon damay résilier sama contrat ak moom mu résilier contrat bi waa léegi bu dee yow ASER agence sénégalaise de l'électrification rurale yaa ngi def sa contrat ak kii nga xamante ne moom moo di apport espagnol bi signé woo ko bi donte sénégalais bi mooy représentant te keneen da da koy résilier yow lan ngay def da ngay dem topp sénégalais bi wala da ngay dem liggéey ak ki nga xamante ne directement mooy borom contrat bi te bi nga koy liggéey ak moom da nga tenir li nga xamante ne moom mooy norme contrat bi waaye donc renégocier sax pour l' intérêt du Sénégal parce que li tax mu renégocier ko Jean Michel Serre aussi ñu koy féliciter mooy li tax mu négocier waat contrat bi ak espagnol bi lii la. Jean Michel il s' est rendu compte d' une chose mooy lii Seydou Kane APOWER Sénégal négocier woon ak Azer ba Azer war ko fay dañ ko surfacturer. bi si njëkk mooy le maître le kilomètre linéaire le kilomètre linéaire ñi ko fayeeku woon cent quatre-vingt-dix mille francs CFA à Azer Jean-Michel ñëw xool prix bi nga xamante ne mooy prix standard bi nekk ci marché bi mu gis ne kan mille francs waru koo mën a weesu kon waa ji tegoon na ci quatre-vingt-dix mille francs mu ne quatre-vingt-dix naa ko bañ a récupérer xaalis de waaye dama ko récupérer en kilomètre linéaire yoo xamante ne dañuy augmenter le nombre de villages yi nga xamante ne dañ koy électrifier parce que du ma benn bi def na ko moom Jean Michel Sène directeur général ASER ñaareel bi mu jóge foofu dal di gis ne béton poto béton yi nga xamante ne moom la ñuy defee électricité bi poto yooyu ñu ngi ci fayeeku presque un million par poto alors que poto bu ci nekk deux cent mille dong la war a jar donc cinq poto de plus moo waral Jean Michel daal di renégocier waat naan ne donc yooyu yëpp dañ koy jël def ko ay poto yokk ko le nombre de villages yoo xamante ne ça va venir au Sénégal mais mu ne gis ngeen marché bi 50 pour cent wu réalisation marché bi ay société sénégalaise lañ ciy dugal ay ingénieur sénégalais boroomi xam-xamu sénégalais ñoom ñooy jël réaliser ko ngir mën cee gis seen bopp ñoom itam transfert de compétence mën am lii mooy li nga xamante ne Jean Michel Sène négocier na ko ak espagnol bi bu yamoon ak ki nga xamante ne moom mooy Seydou bi nga xamante ne moo nekkoon mandaawu ki nga xam ne moom mooy espagnol bi kon du mën a am li yëpp parce que kii daf ko surfacturé woon et Jean Michel constaté na ne surfacturation yi tax na ba marché bi yokk ci quinze milliards parce que marché bi yëpp quatre-vingt-onze milliards et quelque la quinze milliards yooyu trois cent mille yooyu yokku ci lépp surfacturation la te Seydou Kane ko defoon Jean Michel il s'est rendu compte de cela mu ne loolu duma ko fay wala boog ngeen yokkal ma ko ay nombre de village boo tax bu ngeen déggee mu ne amoon naa tant de village dama ko surf dama ko renégocier léegi dox nañ ma tant de village yokkal nañ ma ko c'est parce que moom Jean Michel Sène dafa se rendre compte dafa seetlu ne dañoo surfacturé woon li nga xamante ne moom mooy projet bi lay marché bi mu jël ko réguler waat ko mooy a renégociation bi nga xamante def nañ ko léegi bu dee yow sa mbokku sénégalais moom moo surfacturé bëgg a gruger maanaam bëgg a lekk ci alalu askan wi plus de quinze milliards trois cent mille francs CFA yow nga ne doo ko nangu waaye sax ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ensemble di APOR bu espagnol bi ak bi nga xamante ne moomee bu Sénégal bi am nañ problème ba kii jàpp ne ki daf koy truandé mu ne ko yow résilier naa suñu mandat ma ak yow pourquoi moom Jean Michel des ak sénégalais bi di ko dooleel tout temps sachant que kii def na fi ñu blanc te mu am lettre de réponse yi moo waral bu ngeen déggee Cheikh Yérim du may sax faral di wax ci moom parce que man je je n'ai que de mépris pour ah, pour de la mépris euh, du pour moom parce que am mu ngi noonu daal bëgguma sax di wax ci nit ñi boo déggee également Badara Gadiaga dañ naan la ñii dañoo waxoon ne kat préférence nationale waaye dañoo ñëw dem ci espagnol bi bàyyi fi sénégalais Sénégalais bi Seydou Kat la Sénégalais bi moo ku jege Amadou bala la qu'est-ce qui se passe ku leen di wax loo est-ce que amul ñu leen di wax loo on s'interroge on se pose des questions dund ko mu ko ci dossier bi dans le fond du dossier wax tot tot ak njombe yi nga xamante ne waajoo bi def na ko léegi ñii ma tudd nii ak lii ma wax lettre yi may wax nii ku ma ko laaj ma jox leen ko ci ñoom ñooñu ci ñoom ñooñu laa wax nag di nga xam ne donc ñoom li ñu doon wax yëpp dara du ci dëgg ay kàcc képp la lii yëpp rek gouvernement wu jomaa yi fay Ousmane Sonko seen régime bii dañoo jël yoon woo xamante ne bokkul ak li ñu jaayoon Sénégal alors que ñoom ñooy kàcc ñoom ñooy wax lu dul dëkk loolu moo waral ma ne woon dinaa def live bi ngir leeralal leen parce que aussi journalistes yi nga xamante ne aussi ñi ngi def souvent des émissions ou des chroniques ak ñooñu di leen déglu c'est comme si dañuy dëggal ñooñu li ñuy wax ñoom nañ ñëw ñu wax leen exactement ñun li ñu yor ak dëgg yi fan la féetee parce que trop c'est trop ci li xew ci réew mi surfacturation bi ëpp na dossier Azer bi Jean Michel moo nekk ci dëgg de A à B lépp moom moo ci nekk ci dëgg mais trop c'est trop tey jii nii nga gis Adama Gaye fële Cheikh Yérim fee Badara Gadiaga fee ku ci nekk di di di sosal le jeune Jean Michel man wax naa ko nee naa ko amoon fulla bu toll nga dem porter plainte ñoom ku ci nekk lim lay sosal na indi preuve bi sinon nga topp ko pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles parce que ñoom ñëpp li ñu wax xam nañ ne et archi faux sur la base des documents officiels que donc loolu mbir la moo xam ne dañoo ne woon faw ñu leeral ko parce que kat bu dee da ngaa am étranger boo xamante ne moom gañe na marché parce que les étrangers bu la ci kenn nax entreprise étrangère yëpp bu ñu ñëwee bu ñu gañee nga fexe ba li nga bëggal sam réew nga exiger ko ba ñu defal la ko parce que yow yaa fay sa xaalis bu dee nag dafa am benn sénégalais boo xamante ne mooy seen mandat négocier yenn yi ba jot contrat bi waaye surfacturé ko mais titulaire contractant bi entre Azer la ak Apoor bu Espagne yow kooku moo la ñor parce que kii daf la bëggoon a surfacturé loolu moo a ñu éliminer ko. bu dee da nga am sénégalais boo xamante ne laa bëgg a triande quinze milliards nga gis ko. far kee ak kee am problème yow nga contourner ko ba mën a gérer li nga xamante ne moom mooy intérêt Sénégal xaalis ba fu muy dugg leer Sénégal mën cee gañe nga def ko ñu ne kat da ngay dooleel ab tubaab néewal doole ab sénégalais du dëkk te ñun xam nañ bu baax a baax ne relation yi nga xamante ne am nañ ko ak les étrangers ñu am fulla lañ ci li ñu def xam nañ bu baax fa ñu jëm te Jean Michel il a vécu en France depuis plus de dix ans ngi nii fa la ñibbisi amul benn complexe yi tubaab nii sur un Sénégalais xam na bu baax li muy def te il a étudié le dossier man xam naa ci dara parce que j'ai tout vu tout lu damaa jël sama temps dem laaj ko qu'est-ce qui se passe il m'a donné tous les documents et je les ai pour dire vrai tout xam na bu baax li mu def beneen bi mooy li ñuy ñaan mooy ministre de tutelle am mu gën koo dooleel mu gën a dooleel Jean-Michel parce que aussi lii xew yëpp il a respecté toute la hiérarchie informé na ki nga xamante ne mooy ministre de tutelle am mooy Birame Souleye Diop kon na ko gën a dooleel parce que loolu la ñuy xaar ci moom boo jógee ci dossier wu reddition des comptes bi leen wax tout à l'heure au leen lu wér la lu tegu la te luy continuer la parce que alalu réew mi ko salfaañe te ñi nga xam ne ñoom leen woo kuñ ci woo rek am nga dossier bu ñu jóge ci li nga xamante ne moom mooy dossier wu ASER bi mbokk yi dañu dugg ci dossier bi nga xamante ne nag potum biir néeg la suñu biir ñu waxtaana ko muy la communication gouvernementale dafa des je suis très mal placé pour le dire parce que su ma ko waxee dañ naan Sadikh Top xëy na lañ ko nommé Gunatar Sadikh Top xëy na peut-être parce que loo wax ñu ne affaire de frustration parce que nit ñi ñoom seen gis-gis souvent moo gàtt gàttin woo xamante ne tant que tu parles pour les autres c'est bien mais tant que tu parles en interne sur un sujet boo xamante ne peut-être sa profil méngoo loolu dañ naan kat boppam lay waxal ce qui est archi faux il faut qu'on réorganise la communication du gouvernement réorganisation boobu nag mooy fexe ba am des relais dans tous les domaines am des relais yoo xamante ne dañu mën a génn waxtaan ak askan wi leeral li nga xamante ne fa la ñu jëm parce que bu ñu ko deful ñeneen ñooy génn wax lu dul dëkk te kenn du ko mën a dindi waaye nag ñun ñii mënuñu saa su ne ñu génn wax parce que buñ ko waxee itam nous ne sommes pas habilités à le faire en ce de manière officielle parce que ñi nga xam ne ñoom la ñu nommé ñoom ñoo ko war a def c'est ça la vérité bu ñu dee waxante dëgg rek mais en ce des na te il faudrait que ñu defaraat ko davantage waxtaan suñu biir def ay relais relais yu yaatu parce que man am na ci ñu bëri ñoo xamante ne dem naa ba seetlu leen ba gis leen ba xam ne ñii bu ñu leen jëlee dugal leen davantage en tant que réseau sur la communication du gouvernement li ñuy wax dina gën a mën a leer askan wi dina mën a am toutes ces informations là mais tant que ñoo ngi cantonné cantonné wu de manière institutionnelle di bind képp wala boo rarement parfois nga expliquer sur des sujets sur chaque dossier boo dee ko rek rey nga sa bopp il faut expliquer aux Sénégalais réexpliquer à nouveau leeral lan leen sur chaque dossier lan moo xew ba sénégalais yi xam li xew parce que ñi ñu ko seqal dañuy génn di wax te dañuy am temps d'antenne dañ leen a jox ay médias jox leen temps d'antenne ñuy wax lu dul dëgg waaye ñun bu boobaa nan la ñuy def c'est pourquoi pour man la première responsabilité revient au président de la république à son premier ministre ñoom ñoo am la première responsabilité de gérer la communication du gouvernement parce que ñoom ñoom ñoo nañ ko réorganiser davantage aw ma ci benn problème ak le premier wax naa ko li ma ci xam na waxtaan nañ ci itam donc je pense que loolu dina am dans les jours à venir mais il faudrait qu'on réorganise la communication du gouvernement parce que loolu moo ñuy mën a may tey jii nii askan wi xam exactement la mooy xew sur chaque sujet tey jii nii dossier Jean Michel bii may wax ni léegi muy dossier wu affaire bii dossier bi dégg ngeen ci dernièrement lu ne mais nii mu leeree nii peut-être sama bopp xëy am na koo xamante ne leereewul woon noonu ci boppam léegi nag commencé naa comprendre soo ci tegee dossier yi presse bi ku la laaj nga ne ko mi ngi nii lii moo ci xew opinion bi dinañ xam lu xew askan wi xam ne kat seen alal lañ leen di sàmmal loolu mooy la vérité nga dem ci reddition des comptes xam nañ ni mi demee ci kanam tuuti ñu génn ne kat dañ ñuy jaay doole affaire jaay doole la affaire règlement de compte la alors que je sais que du règlement de compte du jaay doole dañ leen dénk alalu askan wi ne wax leen alal yu fan ngeen ko dugal ñu xam ko kon mbokk yi dama ne woon waxtaan wii du yàgg 30 minutes rek laa ne woon laa koy kale bu ci nekk ma def ko ci 10 minutes ci trois sujets yi nga xamante ne dama noon nañ ci waxtaan benn bi muy des comptes benn bi nekk sur le dossier de l'ASER benn bi nekk sur la communication du gouvernement il faudrait qu'on s'organise davantage mën a waxtaan ak suñu biir defaraat bu mbir mi mën a jëm ca kanam critique bu ma ci def def ma ko pour critiquer kenn aw temps boobu am naa fulla gu toll la ma xalaat moom kenn mënu ma ko tere wax danaa ko wax xam nañu ko ñu ma mës di liggéeyal xam nañ ne noonu laa mel c'est ça ma nature aw benn problème ak kenn aussi bien dans la communication du gouvernement que ñi nga xamante sax ñu lañ seqal opposition mais il fallait clarifier certaines choses ci réduction des comptes ci ASER mais également wax également que ne il faudrait qu'on s'organise davantage pour li nga xamante ne moom mooy suñu communication bi lii daal mbokk yi mooy li ma ne woon dinaa leen ko leeral ngeen xam ko ñu itam parce que di leeral dafa baax ñu itam bañ naan ñoo ngi waajal députation yi ñuy génn dox man je ne suis même pas intéressé par le poste de député pour mu leer parce que xam naa li may wax nii xam naa li may waxal suñu parti lañ bokk te mën nañoo jàpp ne peut-être dañoo wàll ñëpp ci députation moo tax nit ñëw di wax loolu yëpp dara ñoruma ci te yàlla xam na ko je ne suis postule même pas pour être député donc ça n'a absolument rien à voir nañu defaraat xool li nga xamante ne moom la ñuy taxawee pour defaraat suñu communication mën a waxtaan ak askan wi leeralal leen ngir projet bii nga xamante ne mooy le nouveau référentiel bi nga xam ne moo war a servir réew mi mën a jariñ réew mi waaye askan wi dégg ko xam ko parce que prochainement dinañ ko présenter mais buñ ko présenter foofu mu am ay relais yoo xamante ne ñoom ñooy wax askan wi projet bii lu mu doon bu boobaa man nii dinaa taxaw bu ci nekk sur chaque chapitre lu ma ca comprendre danaa ko wax lu ma ca comprendre lu mu dem wuti ji expert bu ko expliquer sénégalais yi live désormais sur ma page yéen ñëpp ngeen mën a xam li xew mën a am toutes les informations on revient dans la dans le la communication également nous reviendrons dans la presse dans les médias waxtaan à chaque fois qu'il le faut leeral saa yu ko jaree dem ci ay débat pour défendre ce projet là défendre li nga xamante ne moom lañu mës a xeex ba egsi fii jërë ngeen jëf di leen jox dig daje incha allah rabbi prochainement dans d'autres séquences merci beaucoup